hello, hello alors buat ke gambian si semua um, am di jàmm non gambian si tam ni mah dek lu réew mi ni mah dek lu bikin réew man sam suñu saar ma dellu di tey di alxames juróom nyenen fan ci di septembre di bés bu rafet bés bu you know boo xam ne yal nañ ci endo jàmm you know and uh, ci wér wér leen liñ bugg yàlla may ñu ko bés bu rafet la tey dama xëy tey ci suba xaw ma lu xew waaye dama fiir ni tey bés bu neex la yàlla nañ bés yëpp di mel ni tey waaye nag euh, ma ngi leen naa nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant euh, tey nag di tax ma dellu si pour wax ak yéen mooy démba ci suba suñ suñ APRC club bi dañ am coolu rëy rëy rëy parce que dañ xëy ci suba gis standard newspaper bi ñu binda di wax ne ci seen front page bi ma riiduma paper bi sax waaye kàddu gi nekk ci front page bi rek dafa nekk kàddu goo xam ne APRC ñu bëri daf leen dañ ko ñaawlu ba daf leen jaax daf leen indil jaaxate parce que dañ fa bindane ne euh, APRC aha ah, Mame Badji ki nga xam ne moom mooy NPP mooy seen administration secrétaire bi moom moo wax ne waa NPP ak APRC di waxtaanee pour ñu nekk benn coalition waxi Yaya Jammeh ñoom ci dëkk bi bokk ci waxi Yaya Jammeh ñoom ci dëkk bokk ci euh, gars yi nga xam ne nag ngeen déglu ngeen su leen ko seetloo fan yëpp bés bi ñoo def sa press conference bi pour wane ne APRC and NPP ñoo nañ together honorable Fabakary Tombong Jatta muy interim party leader dëgëral na ko fa mu ne loolu bokk na ci ci wax gi ñu wax Yaya Jammeh ñëwoon ci dëkk bi woone nañ ko ci you know soo dégloo député bi muy Rambo Diatta ci same thing la dee wax nga déglu ñoom Doudou Dia député spokesman bi moo dee gën a wax dan even the spokesman who is Amon Niasse the same thing la dee wax so you know bi news boobu génne gars yi yëpp a ko ñaawloo ne kon xanaa Fabakary daf ñoo nax parce que kii moo nekk NPP ca kaw di wax wax lii te ñun lii wax waxuñu ko coolu ni kur man ci taxawaay laa binda yónnee naa ko standard sax di leen wan leen man binda naa sax li gars yi coow ni binda naa wax naa leen fa daal li rafetlu ma ma ne leen rafetlu ma ko parce que kii li moo wax du dëgga parce que euh, Mame Magic Njie am na ñu ko ñu xam ñu bëri ne sax dafa amoon na ah, moom moom mooy Yaya Jammeh dañ amoon problème waaye léegi la ñëw NPP waaye daf daan liggéeyal Yaya Jammeh gannaaw gi ñu am problème just like gars yi ngaa dégg ni yëpp ñu bëri ñu bëri di coowal ni dañ daan liggéeyal Yaya Jammeh ñu ama moom problème ñëw xëy na mu jox la place bu baax nga ne di nga def yi fi njuuj jaaj di sàcca di tappale di jaay ay essence di labaj këri jàmbur yi aussi mu jàppala daxala yéen mu tëj la yàq sa ah, soxla ñooñu dañ bari ci système bi waaw soo am nañu moo xam ne sa waa ji mun naa posé mun na sa maam Mbagnick Ndiaye ci ñooñu la bokk you know ma ne leen maam Mbagnick Ndiaye man bokk naa ci négociation bi loolu laa bind standard bi ma ne man bokk naa ci négociation bi te façon ngi wax googu balaa ñu ko doon wax sax dañ waroon naa laaj journaliste yi oo laaj APRC dégg nañ li fa Bakary di wax gis nañ bi biñ binda sax boo xam ne dañ ko fabriqué te ki ko fabriqué man ki ma ko wax daf ma ne mu ngi ko jëlee ci UDP website UDP website nag ànduñ ci coalition bi because dañ fii ne dafa yàqa seen soxla waaye ñoom ñoo fabriqué paper di wax ne sax agreement bi lii la wax lii la wax la lee la wax biñ defee loolu ma ne binda naa paper di leen wane leen agreement bi demeewul noonu man maa ngi fa woon gis naa li agreement bi demee waaye ci gàttal ko rek mooy ne um, wax googu bi ma ko déggee dama binda immediately ma binda publish naa ko tasaare naa ko ci whatsapp yi ba pare yónnee naa ko standard newspaper ne leen man ñaawlu naa lii parce que kii bokkutoon ci négociation bi man maa nga wax ko woon musuma cee dégg turam sax bébi Rambo Jatta ñëwee démba first deputy uh, party leader Rambo bi mu ñëwee démba wax ne bokkoon na ci bo turam bokkoon na ci ñi waroon naa bokk ci négociation bi waaye musta teew ci benn ci laa soog a xam ne sax ñu ne bokkoon na ci waaye man turam gisuma ko xaw ko woon ci nit ñi te man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo finalise arrangement bi maa ngi toog soo ma ne xanaa waa ji kon dafa jéem a saboté suñ coalition bi parce que kii xam na ne su waxee lii dafa ñaawal dafa ñaawal touriste paa baax rek tam boog jaama yàqa xol yi waa APRC fii ne dañ dee naan te moom dafa waroon naa dafa waroon naa déggu mu wax journaliste yooyu ne leen ah maa ngi leen naa wax lii de waaye loolu laa foog because óoru ko xamut li mu doon wax ne leen because fekk ma fa woon bi ñoo def agreement teewuma fa woon soo dat su ñooy binda ne maam Bajik Njaay ne mooy NPP euh, admin secretary ne APRC NPP négociation bi yëf yi Yaya Jammeh ci ñu aat ci ne mu ne ah loolu la wax de waaye fekkeewul ba ñoo def négociation bi ak la na nekk ca kayit googu parce que gisu ko gis ñu néew soo loolu laa doon wax démb bind naa ko ñu nañ man ak ña ma bindal soo ko mënoon naa wax ci audio nit xam lan la dina neex soo moom laa doon jéem a setal nii di leen wan ne benn tey ñu ngi mel ni ay political doma yu jafur <laughs> political doma yi doma nag boobu ma ko sax waaye dama leen ko xoolee noonu la li ñu xam political doma yu jafur parce que ñii loo xam ne dañ ko nangandoo depuis à démb tey ñu ko ñaawal APRC ma ne ma ne waay waay waay yéen itam coalition bi in fact ñoom liñ gën a bañ nangu li ma dee waxi all the time mooy ne liñ gën a bañ nangu mooy ne coalition bi seen programme bi yëpp dafa yàqu on the 9th of December 2021 bi night bi yaaya bés bi yaaya jàmme waxee ne nolify na élection coalition bi keroog la seen loxo génn ci set wecc ci affaire seen programme parce que keroog lañ ko jox Sénégal Sénégal teg yóbboo ko foofu te rek la ko Macky Sall jël ci seen loxo doxalee ko ni mu ko buggee te loolu politique la ñi fiil ne dinañ ci doon jëriñoo ñi fiil ne dinañ ci doon weeda bokkoon nañ ci coalition bi bokkuñ ci woon dañ fiil ne ñu daa ci jëriñoo xaaral ma ànd ci Sénégal seen taxawaay ñu bokk ci amoon na nag samba yoo xam ne dañ doon tàccoo waaw xamuñ sax xew waaye bañ demee ba ca digga ci lañ soog di yëg ne di lee xew waaye yéen xam ngeen ne ba Colley Son parti bi toogee sori bañ bañ d'accord ne dañoo compiti Yaya Jammeh musut seen xel musuta doj daj ne suñ paree Yaya Jammeh ñi ko doon liggéeyal ñu bari dañoo ñëw liggéeyal ñoom ñu ma doolee ko ci am na ci naka la tuddaati ambassado sam ambassado sam yi ci ëpp yëpp dañ delluwaat xanaa ñu ngi fiil ne ay ñi ay you know ay joolaa yoo xam ne you know soxlawuñ leen waaye ambassado si ko doon liggéeyal yëpp dañ la so coalition bañ doon plan loolu boo ko ci seen plan bi am na ñeneen a ñeneen a ñeneen ñu ci bokk ba pare sax ki nga xam ne mooy woon number three ci gouvernement yi Gambia bi da ngaa ne président vice président speaker of the national assembly Abdoulaye Bojang dafa bokkas ñu jël ko def ko ambassado ne moom mooy joolaa bi baax ci àdduna si ci Gambie nañ ñu wax sa àdduna yëpp kenn waxul dara loolu yëpp dafa lew waa parce que it was a because UDP dominated government la woon time boobu because lu ñaata ñoo doon liggéeyal Yaya Jammeh saf ci sap weex ci xat dem UDP kenn waxul dara lu baax la understand nga yeneen parti yi sax xaw ma sax yooyu because xaw ma yeneen parti yi ñena fa dem aussi waaye ñaari parti yi gën a contest fi mu nekka mooy UDP ak government party bi muy NPP léegi bu njëkk ba competition bi UDP la woon APRC la woon mu óor ma ne APRC gars yu bëri te man gis nga so da ngeen war a séparer politiciens yi ak administrateurs yi ñu yaay jaame jëloon ñoo xam ne sax bokkuñ APRC dañ ko doon liggéeyal rek suma maas gi bokkuma woon APRC dama ko doon liggéeyal rek ak ñeneen ak ñeneen su ma waru gan li ma war moom laa doon def rek te xam ne mun naa koo def am na ñoo xam ne bëggoon nañ koo def waaye xëy na munuñ koo def waaw man su ma neexee léegi mun naa jóg jël suma pen ak suma paper mu bindal lu ñor publish ko nga wax dara ma tontu la ci taxawaay public mun naa ñëw toog waxtaan li ma bëgg wax lu ma wax ci lu clair ñu bëri mënuñ loolu am na ñoo xam ne mënuñoo wax am na ñoo xam ne mënuñoo binda you know mënuñoo lii binda daf leen jafe jafe yombul nag binda jombul soo moo tax man li ma doon def ma ko mun moo tax may ko doon def waaye nekkul ne leneen la waaye ñi fa nekkoon yëpp di jàppale yaay du jeex ci dëkk bi in fact Essa bi ko Paa Nderi Touré di ko doon. interview fan yi mu ne 98 percent of Gambians were behind Yaya Jammeh bokk na ci moom ci moom 98 percent soo ne téeméer juróom ñeneen fukk ak juróom ñett yëpp a woon ci gannaaw Yaya Jammeh ne nous di toppatoo seen soxla ci ron nag waaye kenn du ko wax dara lu mu def ne baax na soo 98 percent yooyu kon kenn war kenn baaxul soo soo leen ñëwee toog fii di wax ne APRC. mun naa jóg dem jël bokk UDP nekk nit ku baax waaye si jógee dem NPP nit ku bon la kon loolu mooy moom la political doma bu jafur parce que li nga wax xam xamuloo ko defuloo ko doo jël ab Ablaye Bojang depuis number three ci government di koo xam ne moo déclaré woon state of emergency tay ni impasse bi ngeen ne ko coppet ne mooy joolaa bu baax bi yóbbu ko def ko ambassade te dégg naa ne fi mu nekk moom mu ngee wër di campagne ne NPP ak APRC war a ñoo ne benn parce que li ma dégg óoru ma nag ñu ne UDP sax dañ ko jox xaalis pour mu wóor pour yàq campagne boobu mu ngee wax nag ni moom Yaya Jammeh laa liggéeyal Yaya Jammeh wax ne bu APRC NPP war a am Yaya Jammeh leen ko wax waaye Yaya Jammeh ñu ne waxut kenn waxut man de Yaya Jammeh ba waxee man benn tey benn tey déggaatuma ko fenn déggaatuma ko fen waaw waxut dinaa dee dégg messages from Equatorial Guinea rek waaye waxul kenn daal waaye moom mu ne Yaya Jammeh moo leen yónni MA Bah mooy woon interior minister ñëpp di wax ne sax bési impasse bi dafa bëggoon naa organise coup ma daaji ko nag parce que loolu du dëgg parce que maa nga fa woon organise su benn coup guddi googu sol na uniform. am ñëw toog rek expect ne Jammeh dafaa ñëw joxe ordres pour armée bi oo so woon waaye bi Jammeh ñëwee daf ne moom bokkaatut ci affaire bi Adama Barrow win jeex na ëllëg dafa d'accord ñëpp dem ñun ñëpp da ngeen tasaaroo loolu rek laa gis ci amee ba lu mu def waaye amee ba gannaaw gi nekkas na fi ba ama APRC problème mu génn dem bokk UDP ñu gis ko gars yi tàccul ko hey amee ba su dee da ngeen a wax ne ene bu la kuy def lu ñaaw amee ba waroo leen ko accept anywhere why because UDP la it was good. eme ba nekkaati nekkaati ba ca digga mu génnaat fa gis na xëy na sax lam fa séentu woon nekku fa parce que ku nekka sa topp sa soxla ngaa toppatoo xëy na mu gis ne fii soxlaam kenn mënu ko koo fajal mu génn fa dellu si waat NPP dellu NPP la dellu nekkaat foofu ba ca kanam mu gis ne xëy na sax fi mu nekk gaa yaa ko bugg a gisee ko bugg a ñàkk a fay la mu génnaat ne léegi Yaya Jammeh ko yónnee waat ne na dellu si waat APRC waaye si dellu si waat APRC bi na yàq coalition bi so kenn jàppaatu ko any serious waaye ñooñu yëpp am na ñuy wax sànni UDP mu ngi leen naa jox xaalis pour ñu tas coalition bi so man li ma wax mooy ne <laughs> you know journaliste yeeg suñ journaliste yeeg suñ activiste yeeg activiste yi wax ne sax dégg naa ñu ne daal Kijera man ma naka la tuddaate Kijera ñu ne mu ne APRC terrorist organisation la ay serious yow xam loolu terroriste organisation you know soo ñoom Abdoulaye Bojang ba ngeen leen jëlee you know am naa because ñu doon liggéeyal gouvernement bi la ñoom ambassadeur si ngeen jël yëpp ñooñu ay terroriste lañ doon liggéeyal li gouvernement bi jëloon yëpp dañ ay terroriste lañ doon ambassadeur si ñoom Massaani Kinte ngeen defoon ko chief of defence staff kooku mu ngi woon Cuba kooku ko terroriste la woon député CDS bi muy ba Dramé léegi mu nekk CDS kooku terroriste la woon waxu leen ko be tey because ñooñu ngi gars te ñooñu ñëpp a ngi ci NPP government bi la ñoo liggéeyal di ngeen leen wax dara NPP government bi la Massané Kinte di liggéeyal benn tey moom la Yankuba Dramé di liggéeyal benn tey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen demal a bi ñoo fa fees tel police département bi ñoo fa fees tel ñu doon liggéeyal Yaya Jammeh waaye déedéet ñii nga xam ne ay political parties lañ nekkoon ñeneen ñi amuñu woon liggéey sax dañ daan support parti bi rek tey yëpp dañ doon support parti bi ñooñu amuñu woon ngeen ne ñooñu ngeen bugg ñaawal ne fu leen neex buñ fa dem yéen fi leen neex foofu lañ war a dem you know ma you know nga dégg nag ndeysaan moo tax bi gars yi ne tël démb wax naa ko bind naa ko kii suma waa ji Euh, Mr Lamine Thiam suma xarit la nag suma nit la ñoo daan ànda su daf ma dee fàttali bañ demee Sierra Leone tey boobu maa ngi nekk secretary general of the Gambia Football Association you know zone two you ñu dem waay football fa football yu nees ñun ñoo àndoon you know win tournament bu neex ñu Gambien si play fa play bu rafet ba you know like wool bi yëpp dañ doon wax talent bi Gambien si ñun ñoo àndoon so suma friend la ba dañ dee waxtaan call na ma sax dafa ma dee invite léegi saa ci brunch bi yooyu although suñ political ideas yi dafa mel ni dañ feewaale parce que dafa xale ni political yi peut waaye moom wan naa ko ne démba ko coow li coow li yëpp mooy document biñ génnee paper biñ génnee ne mooy agreement bi nekk diggante NPP ak APRC te loolu li ma leen wax fiñ ko jëlee ñu ne ci UDP website coow li yëpp foofu la jógee fa la xër-xër gi jógee ne agreement bi li APRC NPP def dañ ko ñaawlu waay waay waay waaye ñoom xamuñ ne loolu gars yi dañ ko fooj yàqkat yi ñoo ko fooj biñ ko lifinee dama binda ma ne leen bu bu leen bu leen bu leen euh, amal fayda kayit gi parce que kayit gi man kayit gi li ci bind yëpp nekkul ci agreement bi waaw ma ne kayit gi liñ ci bind nekkul ci agrément parce que kayit gi dafa wane ne euh, mu ne kayit gi dafa wane ne yaayaa jaame suñ paree dafa ñëw te kenn du ko wax dara loolu nag ñaawloowu ma ko is good waaye xam nga ñeneen ñaa ngi cee mer ne sa yaaya jaame su ñëwee dañ ko war a takka yóbbu ko prison te loolu du possible waaye loolu sax ne loolu sax demeewul noonu sax ñu si su ñëwee itam euh, euh, dañ ko war a fay xaalis lu nekka loolu man gisuma ko loolu pour naxaree xool yi gars yi nga xam ne dañ bañ Yaya Jammeh la ba pare ne alelam gi ñu jël yëpp dañ ko koo delloo alel gi nga xam ne li ci ëpp yëpp jaay nañ ko ñoom Bata Mbédou jaay nañ ko. nga seen soo xale xaw ma alel googu fan lañ koo jëlee. te you know loolu sax jaleel googu balaa ñu ko koo delloo dañoo seet naka la ko amee lii dédé soo you know loolu waxi picca la yooyu xam naa ne su ma fa nekkoon su su ma ko gisoon ci négociation sax naa leen ne lii waxi picca la li jéggi naa garaaw nag mooy ne ñu ne yaayaa ina baro dafa ne suñ wiinee dafa def APRC ñooy nekk vice président ministériel position juróom at least juróom ci APRC laa dem ak yeneen ak yeneen soo mënee leen loolu kon su Barrow defee loolu ba gars yi koo liggéeyal yëg ko ñoom Aïssatou Touré docteur Aïssatou Touré ak ministre Sami dañoo ne ah kii lii la fexeel kon kenn kenn du ko liggéeyalati te su amee problème time élection bi kenn du taxaw ci booram pour dimbali ko la la doon Yaya Jammeh loolu bind naa ko ci suma kayit yi ne leen Yaya Jammeh li ko gën a yaaxa mooy by 2016 daf daan toog moo anybody du ko daan waste time kii dinaa ko génnee suma ma winee dinaa ko génnee su ma ko winee kële dama ñim ñim óolu daf leen ko daan wax man sax wax na ma ne dinaa génnee kii dinaa génnee kële dinaa waaye maa ngi remember ba moo ba maa wax loolu ministre bi toogoon ci booram kooku dafa foogoon ne dafa óolu woon kooku parce que wax ne kooku bokkut ci woon ñu moo génnee de waaye kooku bokk na ci ñi ko ñu gën a njëkkaa sànni onda di bos soo kooku su ko defee loolu xëy na kooku dafa jógee foofu rek kool ministres si yëpp kool amba ñi mu doon wax ambassadeurs yëpp ne leen Yaya wax na lii ci kanam Sam Sarr na su paree na leen génne moo tax ba mu amee problème yëpp jàppale opposition bi pour ñu daaneel ko ñu ko doon liggéeyal so man su ma man su ma nekkee ci négociation bi ñu ne dañoo defaat di seen thing dinaa leen ne lii waxi ñàkk a fayda la lii la Yaya Jammeh defoon moo tax mu féel ñu bind ko ci kayit googu itam. may laa wax rek ne saasaa yi ñoo ko binda ne lii kale ñu yàq coalition bi parce que coalition bi dafa upp seen boppa yi ne lii moo mun a winloo caami kii naka baro te bëgguñu yi baro win waa APRC itam ñoom itam ne seen njëriñ lañ gis ci wini baro gis nga su UDP nekkoon su su doon UDP government la óor na ma óor yàlla ne APRC dinañ dem négocier te UDP government under these conditions because benn parti da mën a win fii pour xëy na ñoom itam ñu dugal seen soxla pour ñu am agreement te su boobaa UDP dinañ nangu te UDP suñ winoon ci dëkk bi borom xam-xam yi nekkoon APRC mun-mun yi nekk APRC yëpp dinañ leen jël dugal leen ci gouvernement parce que loolooy yóbbu gouvernement coalition government bi after 19 20 2017 ah. seet leen ñu jël yëpp dugal leen ci seen government bi because xam nañ ne ñii suñu leen dugalee ci seen government seen government du dem fenn te government dafa da koo xam da nga koo mun moo tax dugal leen fa soo ñu ne dégg nag ne tëlla ne dama na ñoo fa daay you know suma suma lady bi ñoo wax ah, Fatou Diaw Mané moom it baro daf ko joxoon honorary appointment about xaw ma lan you know vague appointment boo xam ne yow ma advisor on this and that and that te yooyu sa foog nga ne duplication la parce que ak su dee communication la ak yooyu yaa ngi am minister yaa ngi am minister of information yaa ngi am spokesman yaa ngi am secretary of you know loolu foog naa ne sax liggéey boobu biñ ko biñ ko ko joxee sax moom xam na ne liggéey bi tur la rek waaye liggéey bi amul sax lum amul amul loo amul liggéey lu mu ci war a def amu ko xam naa def ko seetaan ne ñu ko jox tur rek waaye liggéey bi sax amul tur liggéey boo xam ne amul ñu ne la rek suma yi yow yaay nekk chief yi euh, chief yi internet service bi nekk ci dëkk bi internet service yi yëpp jox nañ la honorary ne yow yaay seen chief yi what is chief of internet service you know ah man maay honorary euh, président bi ma ko jox xam naa xaw ma xaw ma dañ ko buggoon a neexal xaw ma lan waaye moom dafa def mistake parce que moom mu ne resign na resign na ci job boo xam ne joob bu ñàkk a fayda amul job bi amul sérieux waaye mu ngi ci dem ba def ci BBC ne Adama Barrow li ko ci naxari mooy ne Adama Barrow dafa dem coalition ak APRC waaw APRC lii waa victimes yi lalee victimes yi lii hey victimes du priorité réew mi man doon laa leen bëgg a warut a nekk priorité réew mi réew mi seen priorité mooy stabilité stabilité na dëkk bi dal jàmm am ñu dem ca kanam waaw mu ne moom loolu waaw gis na li fiin bi ñu ngi bugg a yaay jàmme ñëw def lii def la moom nag li ma ko doon dama leen ne dama ko oolee mooy capitaine Jaga Njaay syndrome moom looloo ko dal capitaine Ndiaga Ndiaye syndrome capitaine Ndiaga Ndiaye yéen dem si yàlla si capitaine Ndiaga mooy woon ñi attaagoon mbokkoon ñi attaagoon Gambie bi 2014 ne dañ fay génne Yaya Jammeh ba mu loro ci ba dee ci kooku système xaw ma sigalatuloon jaañ moom wax na ne dégg naa ko mu wax ko ci interview mu ne Ndiaga ne moom bam dege ki ñoo wax ni Aïssa Ndiaye mu ne Aïssa Ndiaye bi maa ngi remember interview bi Aïssa Ndiaye boobu ci radio yi muy wax ne yaaya jàmme daf ko nax waa birkaama la jël ko fa yóbbu ko kanin lay tëj ko ci benn néeg di daanu di ko daanu ci ko am every day di ko réeb di ko réeb su doyalee ba mu doyal mu sànni ko kër yaayam soo kër papaam waaw léegi mu ngi birkaama. soo euh, ki ñu koo laaj waa ne waa NIE yaa ngi fii ci biti ñu ngee seet li maa def lii di jooy dëkk bi ñu bëri gom ko keroog la jéega naa jaga jaay toog ne moom décide na ne dina dem jëli Yaya Jammeh dina ko rey mbaa mu ko ci palaasam ci loo xam ne gannaaw gi yëg nañ ne Aysa Njaay boobu sax amut ay sa njaay dégg naa waa UDP ñoo ko fay xaalis ne ko nga di wax ni a Jammeh la def lii waaye ay sa njaay boobu amul su ay sa njaay boobu amul amoon niñ ko doon waxee ak métit gi moo wax foog naa ne moom mooy jiitu ci TRRC bi Tuufa Jallow parce que kooku ñaawteef bi ñu doon wax ne moom ñaawteef bi ne loolu la ko Yaya Jammeh def you know loolu su doon lu am la kon kookooy jiitu ci TRRC waaye Aïssa Ndiaye boobu am ay sa Ndiaye benn samba booy njoogaan lañ fay deen a jaxare ne ko demal nga nga wax ni li leen la dal nit ñi gom ko soo sosante bi lorante bi loolu dafay yàgga ci politique Gambia soo moom Njaga Njaay looloo ko jógloo ne mu ngaa dem génne ji Yaaya Jammeh benn dina ko rey mbaa mu génne ko bàyyi foos mu faam ñu rey ko ci gaa yi nag ne Yaya Jammeh dafa violate human rights am kooku dañ violate human rights ñoom Kijera mi gis nii yëpp activistes yi ngaa gis ni ñoom ñooñu ñoom Njaga Njaay loolu la ñoo faytal waaye dama ne Njaga Njaay ci lu sukkandeku su su àdduna ne woon dellu xam naa ne su doon dunda ba toog gis ne lii lañ ko defoon kon soo moytu dina ne Yaya Jammeh baal ma axa ñii dañ ma nax soo di same thing foog naa ne moom lañ naxee Fatou Jaw Mane paper bi ko néegloo décision bii dañ ko sos dañ ko plan paper boobu amut te foofu la jëlee décision am bay ñëw di ŋàññe nguur yi baro bi waaye xëy na dafa bëggoon a génn rek parce que liggéey biñ ko way itam li ma la wax rek liggéey biñ ko jox amul fayda amul fay amul dara soo liggéey boobu soo ci génnee naan day di ko def xëy na BBC la ci bëggoon pour ñu déglu ko rek waaye suma loolu amul maanaa amul dara soo façon yooyu. wax naa ko Lamine Thiam démb ne ko man bindoon naa paper di leen wan ne sax kayit googu du dëgg waaye kenn nangu koo pop mu ne naa ko ko yónnee yónnee naa ko ko démb rek ay hope ne tey dinañ ko publish waaye yónnee naa ko ko démb ba giriir na ko ne ma ah si ngaa wax nii dëgg loolu ko war a seet parce que ma ne ko man maa nga fa woon ba pare ki ma leen a wax nii mooy Mame Mbagnick Ndiaye bii li ko wax loo lii waaye Mame Mbagnick Ndiaye sax génn na démba defar na vidéo boo xam ne man ko seeyaa ci suma suma peej bi suma whatsapp peej bi di wane ne moom waxul loolu standard newspaper xaw ma nag ndax standard newspaper dinañ ko joxaat tey front line wane maam Bajeg ñaanee lam waxoon wow ko xëy na nag dañ ko téeb mu ne moom waxut loolu moom li leen wax mooy ne yëfi Yaya Jammeh pour ñëw ñëwam ci dëkk bi loolu diggante government bi la ak Yaya Jammeh government bi la ak Yaya Jammeh waaye APRC ak NPP coalition bi loolu is different wax na ko try na pour explainer daal moom waxu gars yi liñ binda you know moom lu wa lu baax rek la wax ci coalition bi waaye gars yi jël loolu nga xam ne moo gën a ñaawal nit ñi seen xol yi naxare bi seen xol yi ñu ne ko taa ci kanam waaw soo um, affaire bi daal I hope ne standard newspaper tey dinañ ko publish Fatou Network yónnee naa leen paper boobu waaye I don't know nag dinañ ko publish ñoom itam waaye um, uh, li ma leen bëgg a wax rek mooy ne Gambia bi paase nañ foo xam ne dañoo toog fii di ñiiroo ŋaaroo ba bugg a def yëfi problème yi Gambia bi yëpp ay TRRC victime san si an démb maa ngeen déglu kii interview am ñu ma yónnee audio bi naka Panderi Panderi Touré ak um, Essa Fall soo déggee ku gomadi yàlla laa laaja eh, demal ci Essa parce que Essa moom dafa foog ne nit ñooñu wax ay dof mu commencé ko saka bañ ko yow foo nekkoon tay bi yaayaa caam mu ne waa dama doon toppatoo suma soxla dama doon ut am maa ngi fi woon waaye ku nekk daf doon toppatoo soxlaam waaye ñi doon toppatoo seen soxla nga ne ñoo ñooy nit ñu bon ñi nekkoon foofu waaye yow mi doon toppatoo sa soxla ci ron yaayaa caam di ko liggéeyal ah waaw man bi maa ñëw 1994 waaw yaay Jammeh dafa ñëw 1994 man ma ñëw 1994 maa ngi jógee graduate naa maa ngi war a nekk looya looya bu ndaw laa déedéet maa ngi fii lawyer bu ndaw nga 1994 waaye yow 1994 mu ne waaw 1995 gannaaw gi ci laa dem def ko 1994 la 11 novembre am ci sa ron 1995 early 1990 ci lañ jàppa sana saabali te ñun yëg nañ Baboucarr Jatta wax na ko ci TRRC bi yow Essa Faal xëy na Baboucarr Jatta guts bi ñeneen beneen nit bi am audacity bi ñeneen am amul ko waaye su amoon audacité boobu dina la wan ne yow yaa ñu doon jàppale pour ñu defar suñ yoon time bi 11 novembre ngay wax tey ne yëguloo ko woon nit ñi yëguñu woon 11 novembre kan a yëgutoon 11 novembre kan moo yëgutoon 11 novembre su dul dara sax ni Ibou Diallo njëkkaa génnee wax affaire yi Koro Cissé man maa njëkkaa génn binda affaire yi 11 novembre préparé bu ci suma bug bi suma bug bi Gambien su bëree ko riib te óor na ma ni ko dem riit na ko moom ci boppam bind naa ko fu nekk 11 novembre time bu Gambie el lañ daan bind 11 novembre ni mu xappu ne bind ko fa mu ngi ci suma bug bi ma ngi ko bind nga ne kenn yëgutoon 11 novembre loolu da ngeen a naxaate di nax ñi nga xam ne xamuñ lool li nekk ci àdduna si te moom bokkoon na ci ñu doon jàppale government bi 11 novembre ba naka la ñu réguler out of that waaw Major Dennis Coker mu nga North Carolina moom mooy woon number two pour Baboucarr Jatta woon number one Dennis Coker mooy number two man ma nekk number three ci army bi time boobu laaj ko Dennis Coker war na ma ne Essa Faal moo ñëw dossier Sane Sabally yiñ moo ko prépare yëpp yiñ ko tëjee mu soog a dem koos you know time yi Koro Ceesay fii la ko fekka julaay june sorry june 95 fii la ko fekk waaye mu ne yëgu kenn yëgu si dara soo loolu di nax ni ñi ba pare ñu ne ko waaw yow naka ngaa def sa foreign policy ak Sénégal waaw Sénégal xam nga waaw senegal waaw suñ diggante rafetoon na ba bi Yaya Jammeh ñëwee it's not true yow 94 nga ñëw nga ne jeexal sa jàng nga ñëw ñun 1989 ci suñ kanam confédération bi tasee septembre boobu foog naa ne ajuma la du ko fàtte you know officer bi ñëw salut ma ne ma mun lien naa gars yi ne ñu ngaa ñibbi ma ne ko pour lan mu ne dañ am ordre ne dañ ñu ñëpp dañoo ñibbi tey mu mel ni danga ma dóor marto ma xoolaat ko ma ne ko ay serious call ñu ne ma ninety eighty nine la loolu am te lu happen keroog la senegal tëj suñ booda bi re-export trade biñ doon wax yëpp keroog la stop keroog la stop nga naan nineteen ninety four Euh, Yaya Jammeh ko yaaxaat 1994 loolu déggoon na OJ waxoon ko it's not true te dinaa ko wax di ko waxaat ñi nekkoon économiste man tase woon naa benn économiste at that time mu ne ma saam mu ne ma naam mu ne ko mu ne ma ñun lu garaawa ñoo dal si ma ne ko lan mu ne ma senegal tëj nañ suñ boole tëj suñ suñ amul dimbal dinañ lekkante ci réew mi parce que suñ économie bi yëpp lañ rek yeah waaye what happened Um, loolu li ñu séet sax time boobu Jawara dafa nekkoon friend ak Babangida Babangida jël crude oil from Nigeria a huge quota di ko may Gambie bi ñuy koo export jox ko benn British company ñuy koo export ñu dugal xaalis fi nga xam ne dañ ko soxla waaw parce que nag gars yi time boobu government bi itam ñoom itam ware woon ci nit ñi ñoom di leen toppatool seen affaire yëpp doy na leen dañ doon nuba sax dëkk bi dañ doon nuba Gambien si sax ne Nigeria ñu ngi doon may diw bu bëri pour ñu koo jaay parce que li ñu tele senegal taj teg ba after di coup d'état ci lañ xam loolu ne diw boobu dañu ko doon may looloo ñu suxali waaye surtout loolu de njëkkante ci réew mi te ba ba pare after that dañ ko tëj Sénégal dañ ko tëj jaame bi mu ñëwee try na ba taay pour ñu tëji ko waaye gannaaw gi itam jaame bi mu gisee ne lii mun na ci am dara muy ko use léegi-léeg moom itam mu tej suñ booda tëj suñ booda bi nga xam ne Sénégal itam seen économie bi garaaw soo waree jaari fale wër wër wër ñoom itam ñu dem United Nations ñu dem AU ECOWAS ñu indi mediation team Gambien si eh, eh, Yaya Jammeh wan leen ne ñii ñoo tëj suñ booda yi ñun mënuñoo génn fii benn pièce ne dañ ko yóbbu Mali di dinañ ko nangu duñ ko mun a Sierra yoon dañ koo nangu duñ mun a te ñii yëpp dañ daan ñëw di jënd si suñ waxee Sénégal Sénégal ah xaw muñ de luñ ko mun a setulee ubbi booda bi bokku ci parce que ñoom itam bañ ko defee dañ gis ne seen économie bi calla taxaw taxaw boo xam ne bés buñ ko ubbee dafaa yàqu moo tax Sénégal ba tey jii nanguwuñ ko ubbi time Yaya Jammeh loolu waaye Yaya Jammeh daf ko daan yu soo su loolu amee ECOWAS ñëw et yu ñëw ñu wax xam ne duñ ci mun dara munu ci Sénégal dara soo dañoo toog ne ah Yaya Jammeh muñal waaw ñu dem ci yeneen dëkk yi ñaan xaalis dimbale leen Gambie Sénégal lii lañ leen def dimbale leen Gambie yeneen dëkk yi dimbale ñu ay looloo ñu doon yóbbu waaye léegi léegi mënatuñ ko te Essa Faal government su amoon ci dëkk bi du ci mu dara mu naan waa dama ECOWAS dañ am loi yoo xam ne dañ ko war a dëgëral léegi soo ne free movement goods free movement people loolu luwaa yooyu luwaa yooyu xanaa bañ waa yow ne ma nekk ci daay parce la ko ECOWAS am ECOWAS luwaa boobu dafa yaaga ah. waaye Sénégal respecte luwaa boobu pare wuñ ko respecte parce que du seen national interest ñu respect ko loolu la te nit ñi seen national interest la seet seetuñ ay luwaa lii la leen luwaa ñoo fi gën a mun a nit su sa national interest buggee yaaxu da ngaa sànni luwaa fële def li nga bëgga looloo ñu dal ci Gambie bi fi mu nekk national interest dëkk bi parewu leen ko ni da ngeen koo teg ci kaw victimes victimes two hundred and lan ñu ne two hundred ci KR saa loolu la Essa ñuy ñuy dee ci tay mi Yaya Jammeh Ivory Coast ñetti junne fa dee ci ay fan yu néew ci diggante Watara ak Bagbo Bagbo amul TRRC moom dañ ko jàpp ni guilty na nus yóbbu ko ICC waaye bañ toogee ba ba yóbbu ko code code bi yëpp seet tubaab yi ci seen français yi ci ñoo jaar ci roon dugalantee ay ici ne leen ko parce que xam nañ suñ ko bàyyi wut Ivory Coast doo am jàmm te su deyee ci àll bi Ivory Coast woolaa am ñu bàyyi ko ñu ne deful dara mu delluwaat nekkaat ci watara ba mu eegee watara ba mu eegee kii euh, bag bo ba mu eegee Ivory Coast activiste yi saasaay yi nga xam ne ci seen dund ci loolu lañ ko wéere woon ak looya si njogaani yu ne leen foog ñu jàppa kii dafa def atrocité ah, ay isi bi bàyyi nañ ko waaye kii dañ ko war a jàppa awatara na leen yéen da ngeen ñàkk a fayda lii du suma national interest dem leen toog fële mu toppat national interest sam mooy mu jubale ñaar dëkk yi te àdduna si yëpp a ngi koo including Sénégal bi nga xam ne ñoom ñëpp la français yëpp a ngi te français yi ñoo doon jàppale sax watara surtout suñ jàppale wutoon watara duñ mun ci soldat yi bag boy ñetti junni ñoo fa ana victime suy you so lii ngeen war a xam ne mooy government dangaa seet sa national interest waaw dangaa loolu la doo fi nekk fii ay samba booy njogaan yoo xam ne xamuñ dara li ñu wax xamuñ li ñoo def ñoo ne dinañ dicter li dëkk bi war a def baro interest la pour mu reconcile pour mu ñëw together with NPP mu dem ci élection bi because boo ticketam pour mu win gars yi nag ñu yee fexe lu nekk xam nañ ne try nañ bu nekk pour lii bu am léegi am na fi mu nekk saasaay bu nekkaa ngi jóg pour indi story pour yaaxa ko waaye ñu ñu ngi toog di leen xaar xanaa ñu fi suñ suñ pen yaa ngi taaj suñ pépa yaa ngi taaj loo leen wax dinañ ko binda dinañ ko wax oh yes ñiy coow ni yëpp e amul benn journaliste bu ma daax a binda ci dëkk bi su ma leen daaxul binda te ke amul benn journaliste bu ma gën a mën a wax itam waaw nekk fii di wax maa ngi dégg benn journaliste bu soof <laughs> keroog dama dégg mu ne mu ngi BBC mooy biñ déggee li ma leen wax rek bi biñ déggee ne senegal ñu ngi rotate seen troupes yi 625 juróom téeméer juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróomi soldat ñëw war a ñëw septembre bu nekk senegal dañ dee rotate 625 soldiers septembre bu nekk la nag ci néemi économique ak yooyu. soo demee ci seen website bi di ngeen ko fa gis ñoom bind ko fa sax xaw ma fan la benn saasaay jógee mooy yàqakat yi rek oh waroo ngay indi Sénégal Macky Sall ngay yónnee 600 soldiers 625 soldiers Gambia pour élection bi ñëw du meeg soo waaw fii seytaane du fi am liñ bëgg a lii lale lale as if lañ ngoo ñëw protect si lii lale Macky Sall loolu gouvernement Sénégal bi waxul loolu saa saa yi yi ñu wax ne dañ foog ne journaliste ñoo koo wax am na sénégalais journalist yu stupide di ko wax am na go? ga gambien journaliste yu stupide di ko wax waaye kenn waxu ko ñoom dañ doon going to ñoom ñoo ci fenka seen story boppa dégg naa benn sénégalais non sense passing sa di wax naan waaw suñ jàmbaar yaa ngaa dem Gambia suñ demee Gambia lu fa lii ñooñu nag ñoo dee tax sénégalais yi gambien si dee sib sénégalais yi wax gu rëy te xamuloo li ngaa wax yow xamuloo ci fi nga ko wéer Sénégal suñ càmbar yaa ngaa dem pour make sure ay du am Sénégal Gambia dinañ make sure suñ càmbar yaa you know di loolu dafaa tàngal xooli Gambien parce que Gambien si dañ dee fii ne Sénégalais yi dañ leen xeeb loolu wax yi dof la Sénégalais yu dof yi ñoo dee wax loolu loolu demee wu doon rotation bi since 2017 man li ma ci daan coow mooy ne dañ leen ko normalise buñ bàyyi diggante ñaari government yi di ko def ci ron li danoon Jawara ak Babangida Nigerians dañ leen ko normalise ñu def ko li amoon diggante Jawara ak Abdou Diouf boobu dañ ko normalisoon te suñ ko normalisoon dëkk bi dinañ ci jëriñu senegal jëriñ ci dañ gis leneen loolu laa daan coow ñëpp na ah Sarr bu leen def waaye Sarr Sarr kii fii ah Sarr dafa gëte ni kii Yaaya Jaame laa lii ñi leen su fi Yaaya Jaame ñëwee dinañ def li léegi nag ñu ngee coow ne waaw ñii sax dañ fi war a génna journaliste bi nga xam ne moom loolu la ma daan xasee ah yow yow yaa ngee li fi nii Yaya Jammeh ñii suñ fi ñëwee Yaya Jammeh la lii bés bu si Yaya Jammeh ñëwee santal Sénégalais waaw su Gambien yi defi ne nii dinañ léegi ñu ngi ñooñu laa dégg ñu gannaaw di wañ ñu naan Sénégalais yi dañ war a génn dëkk bi parce que suñ soldaar yi ku leen gën a mun a nekk garde amut bay wax naan soo demee daafoo peacekeeping which is true they were one of the best dem nañ Liberia dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ central ñu def benn tey Central African Republic dem nañ Bissau liggéey bu rafet United Nations soo demee man ba ma fa nekkee Gambien soldats yi ak police yi fi ñu leen a liggéey bu rafet lañ fa dee dem soo léegi la la yàgg naa di ko wax ñu naan dama dof léegi nag loolu la ñu loolu lañ doon wax keroog about two weeks ago de ñu ngi wane ne waaw ah Gambien si lu tax sénégalais yi di ñëw. waaw lu tax sénégalais ñoom ñoo gënaat ñun suñ dëkk la ñun Sénégal waroon nañ fee jógee impasse bi passé na balaa balaa balaa bla bla journaliste yooyu barka démba laa dégga ñu ngi delluwaat BBC ñu doon wax loolu bii ñoo delluwaat BBC di wane ne <laughs> di wane ne soldaari Sénégal yi ñu dañ fi war a toog parce que NPP ak APRC coalition bi ñu ngee seet ba bañ indi fi Yaya Jammeh am Macky Sall seet bañ indi fi Yaya Jammeh suñ ko fi indee waaw na Sénégal moo tax Sénégal soldat bi dañ fi war a toog xam nga foofooy dooyu waxi ku daanu ci sareet soo yéen bugg ngeen sénégalais yi toog fi you know pour stand against the army or Yaya Jammeh waaye buggu leen Sénégal yi soldats yi nekk ci dëkk bi pour support Adama Barrow peace am and tranquillité so mënuma laa understand lan la so yooyu yëpp dama la war rek ne ñàkk a fayda gi nekk ci suñ journaliste yi ak ñàkk a fayda gi nekk ci suñ politiciens yi ak suñ activistes yi loolu lañ bugg a nekk fii di ñu wax lu amul fayda waaw te ma dëgëral leen ko rek seperti um, APRC NPP coalition bi lu baax la su leen ko buggee ñaawloo naan APRC waaw government bi terroriste lañ woon kon seen nit ñi ngeen samp ci government bi yëpp da ngeen leen war a génne parce que time bi ñu nekkee UDP leen government ngeen ñi am na ñu bëree ngi fii ñu ngi leen liggéeyal baro ben tey kenn du leen wax dara nag kenn du leen dee wax dara ñoo maasaane kente ñoom Yankuba kenn du la ñoo ñoo nekkoon ca kanam in fact soo leen seetee look at the time impasse bi Massaly Kinte mooy woon ambassadeur ambassadeur li fi naka la tuddaati Yaya Jammeh Cuba time boobu Ousmane Badji mooy woon CDS Chief of Defence Staff waaw Ousmane Badji la waaw and then Yankuba Dramé mooy woon député CDS next to Yankuba Dramé moo woon général Mamadou Sow mooy woon opération commanda du ma fàtte loolu mu bi affaire bi tàngee ba tànga Ousmane Badji dafa jox order Yankuba Dramé député bi Yankuba Dramé jël order boobu jox ko euh, Général Sow mooy woon opération commandé nañ leen déployer troupes yi ci street si Sow joxe oda ci gaayam yi ñu déployer troupes yi ci ci ci street si looloo am man yëg naa ko loolu am na because ma ngi doon wax ak ñoom time boobu waaye bi affaire bi demee ba ñëpp tasaaroo be kenn xeexul ñoom ñëpp ne waaw léegi Barrow ñëw. lii sénégalais bi ñëwee pour xeex si kenn xeexu te ñoom ñu ne leen ñu ngi nii ñu seen nit lañ organiser leen dina ñu waxtaan def lu nekk ñu jëne ñokket général Momadou soo daxa ko ne moom moo génne troupe si ci mbedd mi jëli Massané Kinte def ko CDS jël Yankuba Dramé député ba nekkoon ba joxewoon woon bi def ko député CDS ba pare jël kii. jël Ousmane Badji ñu taxa ko xanaa Ousmane Badji gannaaw bi lañ ko jël sax yóbbu ko ne dañ koo def xaw ma naka attaché militaire attaché China attaché China loolu fuñ ko wéer ñooñu time boobu ñu ngi bëgg ñu soxla ci gouvernement bi gouvernement bi soxla seen di ñu soxla dañ leen jël bàyyi leen ci système bi waaye ñu soxla wul ñi nga xam ne ñii waaw fii lañ rek jaay la rek waaye wéeruñ ko ci dara dara dara dara soo façon yooyu moo dee jaaxa réew te loolu dañ ko war a seetaan Adama Barrow nag moom yoon baa ngi nii ubbil nañ ko ko APRC NPP isa foogo waaye ñu ngi taxaw pour yéem a yàqal yi ak nuñ ko buggee yàqa rek mu fa waaye dañ leen pare de because the struggle goes on te man sax xelaatuma léegi afta afta su Adama Barrow winee foofu la coow lii di bari because foofu ngaa gis nag saa saa yi gën a dëgëral seen li fi ne lii nag suñ campagne yaaxu na nañ leen ci tuur suuf parce que dégg naa ñu ngay xalaat yu court si lu nekk yëg naa ko yëg naa ko te court si benn tey ni ma leen gisee court si benn tey dañ dooleel lawyers yu joogaan yi nekk ci dëkk bi political lawyers yi so called politicians yi dañ leen dooleel tey ji bés bu ma xamee ne koot si doolewuñ wuñ mooy ñu bàyyi woon Ismaila Jammeh ñu bàyyi Aliou Dieng bi nga xam ne li tax ñu tëj leen juróomi at wéeruñ ko fen ne bi ñëwee ci TRRC bi liñ leen wax ne liñ leen bëggoon ñu wax waxuñ ko ñu ne defuñ ko just like Edward Singate bi mu ñëwee ci TRRC bi liñ waxoone ne daf ko war a mu ne defu ko mooy ne moo rey Koro Cissé li gën a ñaaw ci lim def mu ne def ko ñu bàyyi ko jël juróom yi jël booy yi ñaari booy yi juróomi at ñu ngi leen tëj soo demee justice minister ñu ne xamuñ ci dara minister of interior xamuñ ci dara minister of defense defense bi nga xam ne ci barak si lañ leen tëj xamuñ ci dara soo laajee booy yi kana leen tëj xamuñ ku leen tëj ñu ne Essa Faal leen wax ne ñoom dinañ leen tëj seen dundi bakkan te kenn benn tey ñeme ñu cee wax dara kenn bugg koo wax lu tax lu tax war waruñ koo wax soo moo tax ma ne leen justice système bi benn tey mu ci loxo njoog saasaañ bi te looyas yi biir bi soo leen moytu dinañ leen dinañ ñu ya jéem a yaaxal suñ soxla ci dëkk bi jéem a déstabilise dëkk bu neex bi yes man to me to be honest with you dëkk bi is a very beautiful country dëkk bu neex la dëkk bu am jàmm la te ku leen ci waxati anything daf leen naa nax te buñ ko yaaxa jaama ji kenn du ko fi yaaxa ci suñ loxo te saa yi suñ amul luñ bugg pare nañ koo yaaxa Essa Fall wax na ko dama doon toppatoo suma bugga bugga waaw demoon naa United Nations kan ko yónnee United Nations Yaya Jammeh demoon naa ICC ñene ko eh, dimbale Yaya Jammeh tax mu dem foofu waaye soo ko ne bañ mu la Yaya Jammeh parce que dafa bëgg a wan ne mu musta liggéeyal Yaya Jammeh waaye Yaya Jammeh bi mu toogee Yaya Jammeh dafa génnee nit ñu baax ñi yëpp dugal fa joolaay moom kon moom xanaa du nit ku baax kon moom ñi bàyyi ci système bi kon nit ñu baax ñi bokk ci te xam ne loolu sos la soo lii lañ war a seetaan xam ne defe ne li dëkk bi fi mu jëm ñun ñoo ko fa mun a yóbbu jàppale ko ñu am suñ jàmmaa tranquille gis ngeen li xew équatorial gis ngeen li xew Guinée Guinée Conakry waxoon naa ne Mali dina am coup d'état coup d'état am na fa waxoon naa leen ne ay kii naka Guinée Conakry dina am coup d'état coup d'état am na fa waxoon naa leen ne Ivory Coast dina am coup d'état dem na ba bugg a am waaye Watara dafa seet ne su defarul système bi jubale réew mi coup d'état dafa am mu indi wat mu indi baax bo ñu nekk benn te génnaaguñ sax ci woodwork bi parce que ami bi dentey rebel ami la génnaaguñ ci woodwork bi waaye léegi fi ma gis sax li su ma gis-gis fi ma ko gisee tey dama fan yii dama toog di ko xalaataat gis-gis fi ma gën a ragal ne coup d'état dina fa amati mooy Équatorial Guinée fa jaame nekk parce que tubaab yi français yi fi mu nekk dañ taxaw pour contrôle alali Afrique bi te foofu alal bu bëri moo fa nekk te waajoojoo ngee màgget moom itam ma oh, kii Alpha Condé tubaab la France la jàngee ay wayn wayn yoo xam ne ay fifty thousand si botul yooyu la dee naan soo waxee ñu ne Sorbonne la jàngee ku ko gën a jàngat tubaab ñoo ñoo gën a bon nag suñ ñëwee pour ñuy sar euh, gom tubaab yi te dafa feebar feebar moo tax ñu puus booy bi waa ji yi nga xam ne xamul dara muy dis dumbu ya maama ji dumbu ya ñu ne soldat la woon ci légionnaire France bi nekk France dafa xosuli woon back way dem ba France dugg ci seen armée bi loolu ku nekk mun na ko mun nga ko Amérique sax soo demee soo amee kayit mun ngaa dugg ci armée dugg ci armée di France bi ñu def ko ci légionnaires yi mu nekk fa fukki at ak juróom corporal la em Alpha Condé bi ko xeetam la mu jël ko ñëw def ko commandant garde si special forces si bañ na téye mu ne dafaa change constitution bi gars yi jóg ñi joroon fetal ni ñi rey ci ñu bari ba luutee élection bi ñu leen fetel ñu dem ci court si court si ne ko yaa win kii moo ko génnee soo soo foogee ne yaa ngi càppacu ne danga ngaa twist affaire bi pour sa affaire ci ci sa boppam bi laa këpp Alpha de waroon naa wàcca pour dem taataam loolu la dëkk bi yëpp doon man loolu loo taxoon ma xam ne dinañ ko coup d'état Obiang na màgget boo xam ne fi mu nekk doomam ji nga xam ne moo ko war a utee door nañ di ko sakkal pexe already ne su Obiang jógee doomam ji nga xam ne moo war a ñëw jël palaasam mooy vice président am kooku ñu ngi koo sakkal pexe. charge nañ ko with corruption Europeans yaa ngi ko sanction te kooku bés buñ coup d'état dinañ ko jox condition o su papaam dayee soo moytuwul dëkk ba dafaa jaxasoo ci dëkk boo ñu am civil war parce que kenn ñu bari duñ nangu pour mu toog soo nañ sóobaale affaire équatoriale Guinée suñ gars yi toog fii dafa foog ne Yaya Jammeh ngi toog ci lu óor toogul ci dara lu óor waaw soo su APRC exécutif bi dem di waxtaan ñuy seet naka la lewalee ñu seet naka la juboo ñu yow toog nekka benn ngeen nekka fii di ŋawti ŋawti loo Yaya Jammeh du ko nangu we Yaya Jammeh na wax na Yaya Jammeh wax parce que li ma leen a wax hybrid code bi ñu defaroon Charles Taylor Charles Taylor mënuñ ko woon a yóbbu IEC ICC hybrid code lañ ko utal you know jël ay tubaab fay leen ak jël ñoom Essa Faal Njogaan yi nga xam ne ne ko waa demal difen ko xamoon nañ ñu mënut a difen kenn ñu win ko teg ko 50 years mun nañ koo def loolu mun nañ ko utal hybrid court jaame utal ko njoogaan bu mel ni Essa Faal ne ma defen ko mu luus ñu teg ko another loolu yëpp possible so ñun li li APRC executive bi di def bàyyi leen ci seen jàmm te di xam ne ci jubali réew mi leen jublu jàmmi réew mi leen jublu ak ñoom itam li leen a teral parce que affaire bi at the end of the day li laa teral la ku nekk danga nga bugg a teral waaw affaire bi nekkul ne ah, da ngaa ñëw de ngir yàlla ak la li lay war non soo gisee ngay toog waay xëy di béy ba suba pour loo góob laa ñoom itam duñ fi toog rek ne Yaya Jammeh lañ fi nekkal déedéet ñi nekk ci politikal fray bi batul bi ñoom ñëpp seen seen seen njëriñ lañ ceew naa tey mag may mag may fecc yaayal naa waaw toog leen fii nañ xaar yaaya jaame ba mu wax li ñu war a def ak lu ñu warut a def joxula lu la lekka joxula li nga naan xamuloo la suturo fi nga dëkk xamul sa bil si koo fay deful nañ ko toog rek xaar ko pare kañ laa pare kenn xamu ko ba mu wax kañ laa wax kenn xamul kañ laa wax non du loolu dinañ ko jàppale waaye seen boppale ñoo gën a jàppale ñoom it dañ bugg a seen fay dañ bugg a seen lu leen a dundal seen joboot seen kiiraay seen ka that's what this politique loolu la Essa Fall ne ba biñ ko mu ne ma ni dama doon toppatoo suma soxna dama doon ut liggéey liñ ma fay pour suma njaboot pour suma lii waaye yow politicien si noonu la te Essa Fall wax na ko démbaati ci interview am ne moom daf daan support UDP lu tax waxut loolu lu wax waxut loolu balaañ ko jël def ko lead council te TRRC ak bi dafa ne soo nee support political party mbaa nga am ne danga am political ambition waruloo cee bokk démba waxati na ko ne moom daf doon support UDP nañ laaj ba Ousseynou Ndiaye Ousseynou Dabo you know honorable Ousseynou ko laaj ak ñeneen ak ñeneen wax na yu bëree bare bëri daf daan fay fii def lale def la lale ci ron although itam xëy na politique ay wa sax muy wax ni waaye ñun liñ xamee woon yaay Essa eh, eh, Fall time yaaya jaame mooy everyday mu dem ginteeyal ko cereem ndawal yaa fi gën yaa fi sës suma baayee def lii ba mu tuddee papaam doo streets in the country maamam yi streets in the country celebrate ko mu yóbbu ko United Nations biñ koo jël di ko def muy liit ay commission time boobu young lawyer la xamul dara waaye su demaan su taggee boppam wax yaaya jaame yu rëy a ni moo waxee nii rek nga jël ko ne kilee fi gën maa ngi gis benn paper bu soo ko riidee rek di nga xam ki ko bindal <laughs> mu ngi wane di wane ne li APRC def waaw kii loolu ta am waaw APRC waruñoo dem ñi victimes yi bla bla soo ko gisee di nga xam ki ko bindal moom ci am APRC la woon waaye Yaya Jammeh la doon am te taay mam ñëpp ko daan ŋàñña ne moo gënoon a bon ci nit ñi nit ku baax la nag lu baax rek la waaye dañ daan wax ne yu bon ci nit ki la léegi mu ngi UDP nekk ci ron waaye ku baax la ba mu demee yónni kenn bëgg koo wax bu amul saaga yu ñu ko saagoon ba moo liggéeyal yaay jaam in fact dañ bugg a yàq kartaam sax ci dëkk bi ndig bi koo soog daf doon liggéeyal yaay jaam léegi mu ngi nii UDP la mu ngi bind yi soo ko riidee rek nga xam dama dee xàmmee bindi <laughs> am na ñoo xam ne suñ bindee su ma rek you know xam ne kii moo ko binda soo tuddee sa rifé rek boobu yàlla daf ma ci may xam naa ki ko binda waaye foofu laay ema ak yéen ba next time it's long enough you have a nice day ñu indoog jàmm li ma leen wax rek it's a nice day you know nañ leen ko enjoy and we rejoice in it waaw jërë ngeen jëf waay waa ngeen baal ma dama am benn soot lifin bi ma bëgg wax rek mooy ne démba um, démba ci ngoon muy on the seven non on eight ci ngoon Um, Ibu Diallo bettal ñooñu ay sunu xelaat which was interesting very good ci ngoon sunu xelaat bu yàgg la sax wax naa ci um, xaw ma sax ndax Karafa you know Karafa Aboubacar suñ great man bi nekk Italie nday yëg na affaire sunu xelaat bi Ibu Diallo def démba gisuma nag mu download ko waaye su ma déglu ma ngi ko wax ne na ko try mu def ko audio mu forward ñu ko please gars yi déglu ko parce que lifin bu interesting la wax na ci yu ñor yu neex. so lii dama waxoon naa ko aat ci suma audio bi waaye dafa slip suma mayen bi ma ne xaaral ma dellu dellusiwaat aat ci rek ne leen yow Ibou Diallo démba def na sunu xelaat bu ñor bu neex boo xam ne ñëpp a ko bëgg a déglu man wax naa ci sax ci indine bi am na yoo xam ne sax wax naa ko tey yoo xam ne yéen wax na ko wax nañ ko démba waaw pour dëgëral ko rek nit ñi dañ ko war a dégluwaat wax yu rafet la fa def waaw wasalaam.